solutions. solution. Quelqu'un qui veut être une solution pour les préoccupations des Sénégalais ne doit pas apparaître comme un problème. Moi, je ne veux pas être un problème sur le problème ou bien sur les problèmes. De de la hauteur,

les grands discours ont façonné l'histoire du monde donc qu'est-ce que les gens veulent comme acte par exemple classe politique bi bi après li buntu Ousmane Sonko xëccio duggal ci auto bi ont euh, soti nañ ko qui xamné lañ ko ont wala ak lolu, yow ndax réaction publiquement wala dem nga ko fa mu approche euh, jamono bu ci nek man homme politique la damay xaar ba xam li xew. suma xamé li xew dogo a wu. donc fofu aussi face à cette situation c'est la posture que nous avons eue donc lepp lo xamanteni injustice la fu mu dal ñun dañ koy condamner jusqu'à la dernière avec la dernière euh, énergie dañ koy condamner de façon ferme. donc toutes ces injustices là euh, yi nga xamanteni nit ñi vivre de part et d'autre

tey jii nee naa la li gars yi di def muy manipulation politique ñun mën nañu ko xam nañu lu ñu koy defee mais tànn ñu loolu dafa am leneen lu ñu tànn dañoo tànn su ma ñëwee toog Ndeye Fatou Ndiaye ma wax ko li nga xamante ni moom laa gëm lu ma gëmul duma ko wax te duñu ko def tamit ci politique donc parce que noonu lañu bëgg a àndee ak sénégalais yi noonu lañu àndee ak ñoom bi nga xamante ni métier bi ñu ma xamee woon ma ko doon exercer muy le métier de journaliste c'est la posture que j'avais mais am na ci loo xamante ni daray àdduna jaraluma ma koy bàyyi Euh, est-ce que jotul acteur politique qui sont en opposition se commencé jël euh, position par rapport à l'effet parce que le procès bi ñu jëm un enjeu quand même parce que nous, avons ciy wax ne bu ci condamnation amee euh, moi, même avec sursis nous avons ñàkk lu jëm ci que mën na alors dans une interview un leader politique wax dit aujourd'hui nous avons wala bu ñu ans, ba ñu éliminé Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 opposition bi wala nga euh, candidats lañu élection bi alors en tant que leader politique acteur peut-être est-ce que jotul jël position par rapport à ce qui se passe. mais ñun c'est clair et puis li par rapport à cette violence exercée sur Ousmane Sonko dañ koy condamner jusqu'au jusqu'à de façon ferme lañ la wax dañ suñu sañoon élection présidentielle ku ci war a bokk ci bokk réunir les critères da nga war a bokk waruñu gis benn loi boo xamante ni war na mën a empêcher nit ki mu bokk ci lu toll ni élection présidentielle lu dul li ma wax léegi ñu fekk la sur des faits graves de corruption de sang wala yu mel noonu wala ñu fekk la nga sàcc détourné de l'argent public loolu la ñu wax moo ma sànq ma ne yu mel nii comme situation bi toll na fii ma jàpp ne bu ñu dialogue ak médiation nous nañu ci jóge ba nga remettre au lendemain en année électorale nous bañ ci pour des affaires banales de diffamation Nous mën ci éliminer wala ñu am mu nekk procès bi jeu d'éliminer notre adversaire politique combat de principe yi ngeen di xeex muy troisième mandat de est-ce que jotul cette opposition là def bloc euh, pour xëy na xeex ou boole ci xeex bi euh, candidat potentiel candidat il ñuy éliminer avant ñuy dem 2024 est-ce que loolu warul bokk ci xeex bi ci ci bu ñu xamee ne yéen ñëpp aussi ku ci nekk <laughs> mbir mi mën na mën na mën na mën na daanu sa kaw xam nga Macky Sall tooñ bi mu ñu tooñ pour man bi ci gën a rëy bokk na ci faire moins que Abdoulaye Wade xam nga Abdoulaye Wade bi gars yi mobilisé woo ak sagesse dafa jël li nga xamante ni moom mooy élection génne ko en 2011 jox ko Cheikh Gueye et malgré bi mu ko joxee Cheikh Gueye le candidat Macky Sall dane moom loolu doyu ko malgré le fait que Abdoulaye di génnee élection ci Ousmane Ngom jox ko Cheikh Gueye dane loolu doyu mais ñun l'ol ko doyul woon rek les rek la ñaan pour ñu dellu si pour man dafa nekk benn début de solution bu am solo boo xamante ni tey jii bu ñu génnee élection ci ministère de l'intérieur nous na dalal li nga xamante ni moom mooy xel yi ba yu du mais encore une fois que les gens qui veulent aller aux élections muy Massamba muy Mademba ak ku mu mën que ñu parce que les sénégalais aussi sont d'égale dignité Si ñi nga ni prétendre aller aux élections ñi nga dama prétendre aller aux élections présidentielles que mu Ousmane Sonko que mu nekk Marie Teuw que mu nekk Moussa Diop nous ma mhm. ils sont d'égale dignité et à ce titre là qu'est-ce ci nous avons lañ lay réunir les critères pour mën a élection alors bon regard aujourd'hui en tant que ndaw ci jeunesse bu bu Sénégal parce que bari na ci sa ay sortie da nga leen di euh, woo ci ñu xoolaat bu baax baax seenu taxaway ñu politique yi bañ len di utiliser souvent à des fins yu nga xamanteni danaka euh, da fay xaw a doy waar lool te mujjanteel gi du rafet ci ñom euh, au même moment au même moment jeunesse bobu ñoo engagé wu aujourd'hui ci le politique. mais parce que je jeunesse bi en fait il faut les comprendre dañu nek jeunesse bo xamante xam nga limay wax toujours né république. Euh, promesse la mooy dañ lay dikk la république est une promesse promesse bi mooy que chaque génération va vivre mieux que la précédente mooy ku ñëw sa dund dina gën a taw feex que ñi nga xamante ni ñoom nga weesu mais euh, Mohamed boo ko xoolee ñun fa nga juddoo rek mënoon ngaa bañ a jàng chance bu rëy nga am ba jàng ba nga commencé yi di jàng gis nga ne ñu bari ñàkk bàyyi nañ jàng te ëppoo leen woon taxawaay ëppoo leen xam-xam chance rek nga am fa nga juddoo tamit da ngay xool ne dégg nga ba tàyyi nit foofu ñu ne kii boppam day métti rek dee na biiram day métti rek dee na benn épidémie jaar na fa rek yóbbu na ko te république mooy promesse bi nga xamante ni mooy ku juddu ci sama askan dinañ fexe ba mu denc réer ba mu jàng ku feebar dinañ fexe ba mu faju ku war a am kaaraange dina fexe ba am kaaraange mais au bout du compte si jeunes ak les moins jeunes parce que pas ñëpp pas am pas fi ne. Mm-hmm. se rendre compte que cette promesse n'a pas été tenue moi lañ ñu waxoon amut mais su boobaa taxawaay dafay am. Mm-hmm. Tahawai boobu nag euh, au niveau des jeunes dafa am solo trop mais man li toujours xam nga dañu la contestation mais le sens de la contestation aussi il faut que ñu koy posé où moi contestation bi may def xam nga bi bi Mamadou Diop di nord qui place de l'obélisque place de la nation. ba oto bi dal ci kawam ba mu wuyu ji suñ borom pour man nodd boobu ñi nga xamante ni ñoo yor nguur gi l'essentiel des acteurs ña nga fa woon di ko dégg muy nodd keroog pour man nodd boobu alerte la ci comportement yi nga xamante ni am nañ ko mu nekk souvent des comportements très immatures yoo xamante ni pour place bi wala fauteuil bi rek moom mooy tax donc man li ma jàpp mooy que ne tey la posture que nous devons avoir en tant que homme politique mooy d'abord benn taxawaay boo xamante ni dinañ xam lii taxaway fulla ak fayda mais surtout tek ko ci euh, xam-xam bo xamanteni ni dina permettre nit ki bu ñëwé nek aux affaires du mëna def comme les autres mais dañu gis né depuis 63 ans les gens reviennent et ñom ñoy def les mêmes choses yow xam nga leen man xam na leen ñun ñëpp xamé nañ leen yeen say nga gis fi ko xamanteni dang koy indi fi mu tok ci plateau bi nga ne ko mais yow 2011 ya doon wax li mu ne la man mako doon wax 2000 2023 man may waxat leneen lu wuuteeg li nga xamanteni mom la doon wax mais lol man que lol dal ma politique sax man gënal politique ci wala dem ci dem gënal à défaut may wax nekk en contradiction ak sumay conviction donc je encore une fois lima légui les jeunes les jeunes de ma génération nous avons une grande responsabilité parce qu'aujourd'hui on se bat pas pour nous donc taxawaay bi warul nek rek nek ci mbedd mi euh, manifester wane seenum nakar tal la contestation li Marine Le Pen wax lolou lay deug la contestation est un droit mais la violence c'est un poison pour la démocratie démocratie nak seigne Fallou daf doon wax euh nit ñi so leen bëggé jité da ngay xajoo sen bang-bang ñun ñi rek kenn ku ci nek la nga jité fa nga jité ña nga jité ña ngay bang-bang ci sa kaw légui lan ngay def lu mën leen mën xamné xam seen kilifa nga mën xamné yow yaa yilif yow la yalla joxone jox natou bobu nga nek nag ku mën muñ ku mën muñ té souvent dañuy gis né ne da fay manké ci ci ci homme politique wala les femmes politiques et japp nañ né man dal j'en appelle à une certaine élévation dans le discours euh, une élévation de la parole publique ci mbiri li nga xamante mais li mënuñu ko continuer à ce hmm. rythme kérok ma ngi wax fële ci Somone ne leen may def historique wu li gatsa gatsa. mané lool dama gis né depuis 1962 ba tay mom mo fi am digënté Mamadou Dia ak Senghor bi bi ciowli amé sengor, Senghor dafa wo Abdou Diouf né ko Abdou ñu bari ñong may wax ne ma jaa faral né ko dama nek ak une meute Senghor de mako wax Abdou Diouf né nañ ko meute bobu mu melni ay mala yu xif né nañ ma na jël sa bakkan na na la jël fi nga nek na la dakk parce que bobu dañ doon def. la traque oudiaïste Senghor Dadi ne ko waaye du ma def loolu dama bëgg nga ñëw jàppale ma fi au niveau central donc diggante boobu gatsa gatsa la won am au traque oudiaïste diggante Abdou Diouf ak euh, la génération de Abdou Diouf ak la génération de Senghor quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir par le fait de la constitution mais ñi nga xamante ni ñoo ak Senghor dafa am ñu dem Dadi, di wax ñooñu ne leen Senghor dafa tëb une génération consacrée Abdou Diouf xeex leen ak Abdou Diouf xam naa ne moom tamit am ñu ñëw xelal ko ne ko da ngay la traque des biens mal acquis parce que tu ne peux pas avoir une opposition milliardaire les mêmes personnes xam nga ndono lu ne dafa am ñu koy les mêmes personnes ñoo ñëwaat ne Macky Sall mënoo am opposition milliardaire il faut les traquer d'accord mais traque yoy ñuy def nga xamanteni ci sen bakkan lañ koy tek ak pour régler des comptes politiques motax depuis 63 ans l'État est utilisé comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de comptes. lool tamit lañuy continuer ba tey moom la ñuy gis ba tey te loolu nañ né tant que mo ngi continuer liñu bëgg ci Sénégal duñu ko am légui immaturité des hommes politiques baax na ci réew yëpp mën na leen sax souvent mais réew mu am gaz ak pétrole si on a une classe politique immature di rayante di tojanté bop di saganté ñoo xamante ni léegi